alors ajaa ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. tey mu nekk journée journée mondiale de la femme mu tombé woon mars en tant que femme nga ñëw fii si maison d'arrêt de la femme ba jigéen nga am. bon euh, pour man de jigéen euh, dafa nekk euh, mbindeef woo xamante ni yàlla da koo beral loxo ndax jigéen mooy lépp te pour man jigéen chaque jour lañ ko war a célébrer donc rawatina tey. huit mars ñu tànn ko comme journée internationale de la femme donc comme tout naturellement rek ma ñëw fii sàggal suñu ay sœurs yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk fii si camp voilà. tey maanaam ay xale yu ndaw yoo xam ne xamuñ dara lu ma ay deux ans lay am 3 ans ñu nekk fii ak ñoom ak seen yaay boo gisee loolu ba léegi nga ci am. non man moom euh, c'est vraiment une préparation psychologique lay def tout le temps balaa ma fi ñëw ndax baxaw mi xam na si dara ndax sama xol moom moo oyof. Euh, métti na ba fu métti yam mais nattu moom si ku nekk lay dal donc euh, c'est c'est carrément difficile nga gis ay xale yoo xamante ni ñu ngi nekk di dund si yenn conditions yi à côté seen ay morom ñu ngi libre ñu ngi jàng école ñu ngi kaf di foo di ree fait très mal donc euh, moom daf may dis trop émotionnellement pour en parler mais sant yàlla jigéen ñi tey euh, bi réinsertion bi je pense que euh, y a de travaay boo xamante ne administration pénitentiaire mi ngi koy def mais xëy na nit ñi ñoom ñoo ko yëgul mais euh, ñoom ñu nekk fii si biir ñoom duñu sentir ni sax ñu ngi leen privé si seen ay liberté ndax dañuy liggéey gis ngeen boulangerie bi am na beneen usine boo xamante ne bon je peux me permettre d'en parler ndax ñoom jot nañ ma approché te xam naa si dara dañuy xëy di dem liggéeyi euh, au moins lépp lu ñu siy gagné dina leen permettre pour ñu mën a jàppale seen mbokk yi leen yaakaar ñu nekk ci biti. donc euh, mu nekk loo xamante ni c'est très important administration pénitentiaire bi teg ko fii et je pense que lu ñu war a yaatal la lu nit ñi war a gën a xam la donc euh, ñi nekk ci biir ñu ngi liggéey ñu ngi continuer njëriñ société bi. ñu ngi njëriñ seen bopp donc côté réinsertion xanaa nit ñi gën leen jàppale rek te xam ne nattu ku nekk lay dal donc bu ko yàlla tuddee kenn mënu si dal. Euh, man euh, sama kàddu démb moom mooy sama kàddu tey mooy sama kàddu suba man dama bëgg rek jigéen ñi gën a continuer gëm seen bopp te xam ni. dañu am ay potentialité yoo xamante ne yàlla moom moo ko def si ñoom ba pare donc il suffit nga gëm sa bopp tuuti rek yàlla dalay jàppale donc su sama sœur yi lay ñaan ñu gën a gëm seen bopp te xam ni yàlla ñëpp la fi nekkal merci beaucoup jërëjëf